aus billahi min shaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk ji ñu leen nuyu di leen saare fii ci As-Samadiyya parce que saat ci nañ ko baax defee rek ci téere bi nga xam ne moo di al jawhar def àllarba jot mu ne wa mudrikun aja dab aqal lu néew min rakatin ci rakka maa imaamihi ànd ak imaamam wakkaana mbir mu aji nekk mas booxante kuñ jiitu saraxa ko xaraf na koo xam ne dangaa ñëw julli gi amoo ci rakka masal dangaa fekk ñuy taaya wala nga sekk ñu siggi ca rakkaab ñeenteel ba wala bu ñetteel ba wala bu ñaareel ba nga ne muy mujj julli ga nga ñëw rek amoo ci rakka ba na ñu julli nga ànd ñoom tàmbali ah kooku nag mu ne in sajada bu sujjootee alxabliya xable salaam awil baadi wala baadi salaam maa hoo ànd ak ilimaan fa batalat yàqu na salaatuhoo julleem ga nil te yàlla na nga am assahan ak yaatu nit ku ñëw ci jumaa ji fekk ñu julli ci nekk taayi ji nga daa ànd ñoom taayi képp ilimaan daal sëlmal li nga ci amatul bàkkaar mu sujjóot xabla salaam nga ànd moom sujjóot xabla salaam wala mu sujjóot baxante salaam nga ànd moom yàqu na kon yow mën nga dig fekk ñuy taaye nga ànd ci taay yi même bu doon da ngaa jàpp ne taay yu njëkk la mujj mujj nga ànd ak moom sujjóot xabla salaam wala nga ànd moom sujjóot baxante salaam da ngay da ngay da ngay sërmal ci saasa sosaat sëg julli ndax amul sëg julli ndax ko mutu ci julli mënut a ànd ci sujjóot te bi nga diggee xamoo taay njëkk loolu ji mujj da ngaa jàppoon ne taaju na nga ànd moom kon amoo ci rakka buy sujjoo da ngay jóge yow àggal sa julli nga ne euh, nga ne ko waaw kon léegi kat man am naa ci rakka nag bu fekkee am naa ci rakka nu may def kon ndax bi nga amul rakka moom boo sujjootee bu mu doon sujjoot bi njëkk xam la salaama ba xam la salaama ci yem sa julli yàqu na léegi nag ba ci am rakka nooy def moo tax man laakin waaye isa adraka njeem am na maxoo ànd ak ilimaan rakxatan ab rakka kaamilatan bu mat sëkk aw rakatayni wala ñaar rakka fara na nga sàmmonte su fekkente ne am na rakka wala mu am ñaar rakka ci julli gi ah kooku da nga sàmmonte lii ma bëgg wax nag xam ko ndax ñaari sujjóot duñ bokk sajada nu sujjóot ko jëg xabla mahal imaam yi ak ilimaan kon buy sujjóot xabla salaam da ngay ànd ak ilimaan si jot xabla salaam nga ànd moom bu dee xabla salaam la ndax da ngaa am benn rakka mu toog taay bi si jot xabla salaam yow benn rakka nga am xabla salaam ji nag moo xam fekkee nga la tax mu koy def wala ko waaye ànd yow mu xabla ji ndax da laa tënk moom ilimaan ji dangay ngay ànd moom xabla ji daal si jot xabla salaam kon loolu leer na lool waa xara na yeexe albaand yee ko ju baada salaam li tamaami ba ca mat ga su fekkee ilimaan dane asalaamaaleykum nag daal di asalaamaaleykum ba noppi nag di sujjóot ba li muy sujjóot kon baxda salaam lay tudd yow baxda salaam jooju jógal fay say rakkaa yow ba jeexal itam ba sëlma loo noppi daal di sujjóot baxda salaam gis kon bu dee xabla salaama ilimaan di ko sujjóot tañ rawale ci julli gi xamoo fu mu ko doon defee sax waaye tiwul nañ ko ànd ak moom waaye bu sujjóot xabla salaam da nga ànd moom bu dee baxda salaam nag da ngay fay ba noppi noonu mu tudd rek gannaaw ilimaan daa fay ba noppi soo indi bi sujjóotum yow da ngay fay lañ la rawoon da nga koy fay sujjóot bu xam salaam noonu nga def kon boo amee moom <coughs> ñaari sujjóot yëpp da nga ko def waaye dañoo bokkiwul noo koy defee ndax bu dee xabla salaam bu ilimaan def da nga koy ànd moom su fekkee ba de salaam nag yow euh, dangay bàyyi ba sëlmal fay rakka ya nga war na fay soogu sujjóot bu xam salaam ñetti masala yi dañoo dend moo tax ñu ber ko nii benn bu nekk audio ngeen déglu bu baax a baax léegi nag wayen tarata bañ dem toftal na alal masbuxi ci gën jiitu min imaamihi ci wàllu imaamam mooji bu baadiyin aji waral ji baxda salaam yaxin day gaar dangaa ñëw ànd ak si ilimaan ndekki ilimaan am na lu mu defoon kat waaye ba salaam la ci war a sujjóot ilimaan baxda salaam la ci war ba moom su jóot na ba'da salaam ji kon bu ñu salaam nga ne ah man kat nga naa ba'da salaam da naa damay mottali sama julli gii kon man naa mottali saa julli gii ndax ba'da salaam li imaan di imaan di di di ba la imaan kon da ngaa la woon nga mottali ko nga jug di mottali far def yow ci sa bopp na lu waral xabla salaam masalan da nga bàyyi saar wala yooyu nga xam da ngaa war def lu ma war def xabla salaam kon gis nga ñaar ñaari ñaati la ilimaan da laa tënkoon ni la kat ba'da salaam laay def nga ne kon naa fay naa mottali kon soog a salaam nga jóg di fay fa nga la nga doon nga def ci lu waral xabla salaam loolu lay leer noo ko defee kon muy ñetti masal yi yoo xam ne euh, bàyyi xel la kon moo tax mu ne euh, wayen taara taban jëm taftor na xaalal masbax si ñu jiitu min imaam yi ci ilimaanam moo ji bu baax di yéen lu war ba'da salaam ko dana gaar wax xabli yin ko jox xabla salaam nag min nafsi ci boppam kon fal xabli xabla salaam yi si dana ko doy kama ataa naka mu dikkee fi naqal ci toxal ga kon bu defee loolu xabla salaam dana ko doy moom ndax xabla ak baxda fu ñu daje ñoom ñaar da ngay jëf salaam imaam daa dikk di ànd ak ilimaan daa yokk daal ci julli gi war a sujjóot ba'da salaam bi muy sujjóot ba'da salaam yow ñu rawale ñaar rakkaa nga ne ah man kat naa fay saa ñaar rakkaa yi ba noppi sooga sujjóot ba'da salaam far ñaar rakkaa yooyu nga wàññi ci itam wàññi googu nga wàññi nag kon day wàññeek yokk te boo ñëwee yokk fu ñu wàññi gi la ñu jëfandikoo kon yow ba'da salaam bi nga doon nattam naa ko ci ilimaan da nga koy bàyyi daal sujjóot xabla salaam rek mu doy la mu ne wa man <coughs> zakara ku fàttaliku rukkoo an ab rukkoo fi sujjóot ci sujjóot rajaxana dellu xaa iman daa ji taxaw alama ci la nga xam ne sahara siiw na yow kat da ngaa dem ba sujjóot daal ne amandi ah, rukkoo ma fekk maanaam da nga nelaw wala ñu tànc la wala dara rukkoo ma nooy defaat da nga naan sajjat jugaat taxaw temm daay rukkoowaat wayu sahabu dana sopp sax ay yox yi mu baamu say an dara minal xiraati ci njàng ma waqiita yàlla na fekk leef la alxay a wàccu ga sopp nañ nag ci bi nga xam ne daay euh, këpp ëpp jëm ci suuf fàttaliku nu rukkoowul mu jógaat taxaw jonn bu taxawee soppaa nañ mu jàng tuuti rek waaw lu mu jàng de baax na waaye ci saara mooy gën ndax yi bu am tuuti bëgg nañu jàng tuuti soog a rukkoo daal waaye taxaw daal rukkoo la bañ lii mu wax nag mooy sawaan ba rek moom la bëgg a jàngal su fekkoon ne da ngaa sujjóot da ngaa ju wat yu taxaw ba na particulier sujjóotoo sujjóotoo ni da ngay toogaat sujjóot waaye toogin daa am daa am lu mu la ci leeral moo tax ma ne waman wax waman koo xam ne sàkkara fàttaliku na li sajjati ñeel ab sujjóot waman na see ko fàtte li sajdatin ñeel ab sujjóot wa waqahaa tam tabi dikraahu ak fàttalikoom min baadil xiyaami gannaaw ba mu taxawee rajaxana dellu ilal julóosi ci jekki saajidin daju sujjóot kon moom day daal toogaat rek sujjóot in lam njëkkun njéem nag yejlisu di jekki xabloo ci njëkkam la daaman fas ka xam ni xadd fàttina xelu na su fekkee ne da ngaa jug da ngaa eh, jug eh, taxaw ba ne jonn ne amun ah, ko sujjóotuma woon kon dangay ngay daal di rot da ngay daal di sujjóot toog da ngay toogaat sujjóot su fekkente ne da ngaa sujjóotoon benn sujjóot kon sujjóotu ñaar bi xam nga toog gi nga waroon toog yi defoo kon nag da ngay toog nag da toog da toog jàng li nga war a jàng ci toogaay bi nga xam ne moo ne ci diggante ñaar sujjóot yi ndax yiñ ci jàng daa bari waaye nga ci baaxoo jàng jàng ko toog ba toog bu duju daal di sujjóotaan nag soo sujjóotee nag nga soog a jóg kon ñoom ñaar ñu bokk rukkoo bi su jóob bi lu mu ban doon boo ko fàtteete ne ca moroom ja da ngay delluwaat defe ko ba tey mu ne wa inna si da jëm fàtte nga sajdatee ni ñaar sujjóot yaa arab yow aji xellu ji fa xirra na nga rot saa ji dante aji wala tajlis si bul jekki nag tusib kon nga jam jub ga su fekkente ne da ngaa taxaw ne da nga da ngaa këpp sëb ji suuf rek jóg jóg xam nga da nga suuf siggi jóg taxaw su jóotoo ñaar su jóot da nga rukkoo da nga rukkoo ba sigi waroon na ñaar su jóot ñaar su jóot yëpp nga tëb ko yëpp nag day am ci nit ku nelaw wala ko fi xelam nekkul waaw maanaam da nga jàpp ci say wóom siggi waroon su ñaar su nga fàtte ko foofu da da ngay rek daal di sujjóot ñaar sujjóot da ngay rot maanaam da ngay nga taxaw ci kaw nga sëpp sëpp ci suuf sujjóot ñaar sujjóot ndax da ngaa fàtte ñaar sujjóot yi ndax loolu lépp mën naa gaar nit day day lu jafe nag ci ndax da ngaa bi taxaw war a war a sujjóot ñaari sujjóot ci suuf nga fàtte ñaari sujjóot yëpp su boobaa da ngay rot fa nga rot sujjóot ñaari sujjóot ñaari sujjóot yooyu nag mën doo fi doo fa jekki li tàmbalee ci fi mu la waxoon nag ne ku fàttaliku rukkoo ku fàttaliku ci fekk ngay sujjóot ku fàttaliku sujjóot fekk ngay rukkoo ak koo xam ne da nga fàtte ñaari sujjóot mu ne wala ta sujjóot na nga sujjóot al baxdiya baxdiya fi jamee xamaa ci mboolam yi nga xam ne zakartoo tudd naa ko min ajli saydin ngir dugub dolli moom li maa boobu xamee na ko neen nag lii na nga sujjóot yi ma la masala yi ma wax yëpp moo tax indiwul naa li nga war a sujjóot ndax yëpp yokku la gannaaw yëpp yokku la nag ba'da képp nga ci war a sujjóot kon kon da nga moo tax man mboolem yi ma la wax nag na nga ci sujjóot ba'da salaam waaw ji duma lu gën a néew rakka mel ni taaya ndax bëgg mbooloo tax nga ànd gaaya bu ñuy sujjóot bu mën doon nga topp leen sëg julli yàqu na yàqeet gum mën a doon waxoon nañ ko fee maanaam bu ñu julli amub ci rakka ne noppi nga ànd mu sujjat bi yàqu na moo tax ma ne lu gën a néewub rakka mel ni taaya ndax bëgg mbooloo tax nga ànd gaaya bu ñuy sujjat bu mën a doon nga topp leen sëg julli yàqu na yaxeet gum mën a doon waaye nag ku am lu mel ni rakka mbaa lu ko ëpp suy la ànd leen sujjat ko képp ba dëgg nag fayal ba noppi mu wóor ku jaawale bu ko tayee julleem du wóor ku jóg di fay lañ ko rawoon yàlla dogal mu yokk ca ba bëxda war ko nee ko njool na daal di bëxda dafa leer ba naññi lu lënt laa ngi nag bu xiifee naññi su la rawee baada salaam ci sa imaam nga jóg di fay def lu waral xabla salaam waaw da jël bindu ci suufee ca numéro 19 bi rek su la rawee baada salaam ci sa imaam nga jóg di fay def lu waral xabla salaam ñaari sunna ñaari sujjóot fuñ fi dajee xabla salaam mooy la la war kon nga sujjóot xabla salaam ku sëgg bay waralu sujjóot fàttaliku ko na taxawaat jàng lu néew dóoraru ko jàng ga luñ sopp la daal tam bëx da bu taxawee toogaat sujjóot na baax da su fekkee dangaa ànd ak ilimaan am looy def te war caa def baax salaam yàlla dogal nga jug di fay ñaar raaka yi des def lu waral xabla salaam kon xabla ak baxandi dañ faa daje léegi sujjóot xabla salaam su fekkee da ngaa dem bay sëgg di sujjóot fàttali da nga rukkoowul da ngay taxawaat jàng tuuti door rukkoo te soo nappee nag nga sujjóot baxandi salaam ndax lépp ak yokk la